partager ak yéen rek euh, le minimum que nous avons. le minimum que vous avez merci beaucoup Souleymane ñu ñëwaat un ci li nga xam ne moom la ñu gis hors du pays mais balaa ñoo dem ci li nga xam ne mooy diaspora dañoo bëgg taxaw un peu ci Sénégal nga defal ñu ci benn situation sa analyse personnelle ci li nga xam ne moom nga gis actuellement ci réew mi. bon analyse personnelle xam nga dafay xaw a doy waar. Mhm. parce que comme ni ñu koy waxee euh, ku nekk am am nga fi nga far. Mhm. am nga fi nga bokk. waaye boo yoree baatu askan Euh, da ngay moytu di wax yenn yi surtout ngay xool nga wax ji nga xam ne moo gën a teey moo gën a dal pour defar euh, parce que boo xoolee ci sa bopp di nga am naqar boo xam ne da nga koy teg tey Sénégal fu mu toll nii nii nii Sénégal si ay lëndëm la nekk ñu doomu Sénégal yi nañu waxante suñu biir dëgg te ñu xool li ñuy wax te ñu xool Sénégalu démb ak tey Sénégal fi mu toog te fu mu toll nii. suñ koy xool sur le plan international et sur le plan nationale sur le plan nationale lu ñu dund ni mosuñu ko dund ay événement nag am na fi léeg-léeg ñu tudd la ay événement fu ñu reyee ay policiers sax am na fi mais de daaw woon demee nii ampleur bi ampleur bi mu am nii mhm. ñuy saccager ay biens di ñëw ba di agresser ay policier Euh, di sàcc di kii loolu musul woon am fii loolu démocratie wu Sénégal vraiment ak histoire Sénégal ak Sénégal ni ñu ko nawe nawee woon à l'extérieur Sénégal moo doon dem di dimbali yeneen réew yi seen problème mu démocratie seen problème mu dialogue vraiment tey Sénégal bu demee ba Nations Unies secrétaire général Nations Unies di def ay communiqué UA di def ay communiqué CEDEAO di def ay communiqué ci Sénégal vraiment wax dëgg yàlla loolu du image bu baaxu Sénégal Sénégal mérité nañu plus Sénégal euh, tey bi ñu amoon diplomatie bi ñu amoon Sénégal sens de responsabilité politique bi ñu amoon vraiment leader politique yi ñu amoon ñu munoon engagé ay combat ñu munoon engagé vraiment ay moment déterminant ay moment yoo xam ne ce sont des moments chauds ñu gis nañ fi 16 juin bi fi kii devant l'Assemblée nationale ah malgré popularité bi am yooyu yëpp on a su vraiment mettre la pression sur gouvernement ba gouvernement retiré wu vraiment tey bu ñu toogee ba ay ñuy rey ay une trentaine de Sénégalais dans des conditions extrêmement difficiles donc euh, war nañu mën a bàyyaat xel suñu bopp dëkk bi bras de fer day tas dëkk bi nañu bàyyiwaat suñu xel euh, su nekkee euh, askan bi lañu ñu bëgg a defaral nañu def attention bu baax ci discours yu ñuy porte un combat une guerre une guerre c'est pas une bataille. c'est pas une ngi mu ngi noonu comme gis nga li nga xam ne moom nga moom nga wax ñu ngi ñu ngi compter le bilan c'est un bilan qui est catastrophique boo xoolee dégâts matériels yi kenn mënu ko kenn mënu ko xam exactement nu mu toll mais ñu ngi ñawlu loolu mais pareeguñ sax ñu gis li nga xam ne mooy ci bitim réew. les Sénégalais de l'extérieur aussi am même attitude boobu noonu nan la ñu mën a comprendre aussi les Sénégalais de l'extérieur ñoom attitude bi ni bi ni mel les Sénégalais fi nga xam ne ñu ngi fii mën nañ comprendre ne c'est la frustration ak yi nga xam ne yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy téye mais les Sénégalais de l'extérieur nu ñu mën a comprendre ñoom aussi ñu am cette posture aussi euh, gis nga à la longue mhm. avec beaucoup d'analyse mhm. le Sénégalais de l'extérieur est plus euh, engagé et plus le Sénégalais de l'extérieur sa vision pour le Sénégal va au-delà de celui qui est là parce que dafa nekk ci ñaari champ dafay dund benn expérience fële bëgg a transmettre expérience am fii et il faut reconnaître aussi que ces vingt dernières années les Sénégalais de l'extérieur ont beaucoup contribué par rapport à l'évolution du Sénégal tant sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social sur le plan financier sur le plan monétaire les Sénégalais de l'extérieur contribue énormément sur, dans toutes les sphères. Maintenant, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la vie politique. Les Sénégalais de l'extérieur influencent bu baax vie politique fii Sénégal parce que ñoom ñoo nekk bitim réew di def yenn comparaison yi di wax ak seen mbokk yi nekk fii mm-hmm. seen yaay seen papa seen jabar seen rakk seen xarit di leen jox beneen vision politique boo xam ne du vision politique bi nga xam ne moom mooy dawal ci biir réew bi mm-hmm. donc en général boo xoolee les Sénégalais de l'extérieur ils ont toujours cultivé l'esprit de la politique participative dans ce pays mm-hmm. donc malgré ñu ngi foofu lépp luy xew si réew bi ñoom dañ ciy bàyyi xel dañ ciy contribuer mm-hmm. débat bi dañ ciy contribuer euh, vote yi dañ ciy contribuer donc message yi ngay kii ñoom dañ ciy contribuer li mujju nag li ñu mujjee gis nag moom euh, venant des Sénégalais de l'extérieur bon sa euh, dépend si analyse ak contexte bi ñu koy teg am na si loo xam ne dañ ko ñaawlu am na si loo xam ne dañ koy ñaawlu duñ ko mës a nangu ñun dund nañu bitim réew euh, participer si contradiction débat contradiction bi c'est dans la contradiction que jaillit la vérité mais pour avoir une bonne vérité également il faut savoir dire la vérité est-ce que xam nga mm. on pa pas manipuler on peut pas créer des fausses informations li diffuser on peut pas manipuler les gens sur des informations pour le dire que nii ngeen war a xoolee fii ngeen wara a xoolee kii moo am dëgg keneen ki amul dëgg di créer ay fake news mm. xam nga di di di créer ay fake news di ko teg ci réseaux sociaux yi mm. leneen li nga xam ne c'est vraiment déplorable les insatanités euh, dem nañu ba léegi le Sénégalais de l'extérieur dafa mel ni comme calomnie moo ko gën a yomb di dem à la quête de la vérité te loolu du identité wu sénégalais de l'extérieur le sénégalais de l'extérieur foo muntu woon nekk tu joti tu porter le Sénégal en toi dans ta foi dans ton cœur en badrouillère et pour être l'ambassadeur du Sénégal par rapport à ton comportement sénégalais de l'extérieur sénégalais de la diaspora boo ko gisee en en général ci biti dañ leen mës traité de gens disciplinés de gens corrects des gens travailleurs des gens engagés vraiment des gens intelligence l'intelligence du Sénégalais a toujours été promue dans le monde donc tey bu ñu gisee ñenn ñu taxaw lekk léeg pour des intérêts autres ngay taxaw di sos parce que nañ ko waxante dëgg ñun ragaluñ ko nañ ñu saaga nañ ñu wax dëgg mais kenn du ñu fekk si terrain boobu mais bëri tey ñu nekk si toile bi li ñuy wax yëpp teguñu ko fenn si ay sos lañ ko teg si ay problème mu gis leen ma si ay buzz la ñu bëgg a si ay vues la ñu bëgg gis pour lan pour détruire d'autres sénégalais kon boog li nga bëgg wax mooy les sénégalais de l'extérieur yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi wu dans les réseaux sociaux la plupart du temps dañuy wax pour wax c'est-à-dire amuñu des informations fiables fake news la ñuy la ñuy véhiculer non non non bu ñu déformer li ma bëgg wax. Mhm. li ma wax dafa am sens orientation. les sénégalais mhm. ñu ngi partager li ñu war a partager la grande majorité. Mhm. nous sommes conscients nous voulons participer à la construction et surtout à l'information boo xam ne c'est une information profonde. puisque léeg-léeg aussi li ngay ñëpp du ñu mën a wax lépp ci réew mi soo waxee léeg-léeg ñu tëj la pour offense chef de l'État léeg-léeg mu attaque à des institutions ki nekk bitim réew peut-être garantie de sécurité liberté d'expression bi mu am moom mënu ko fi am donc du ñëpp du ñëpp am na si ñoo xam ne wax yu wóor la ñu wax wax yu leer la wax fi ñu koy wax lu teg lu tegu la peut-être li ñu nekk bitim réew façon bi ñu koy waxee ak profondeur ak clarté ñi nekk fii mënuñu ko wax mais ci biir loolu ci biir loolu da si am ñoo xam ne identifier nañ leen seen façon waxin du communiquer ñooñu ils font d'ici beneen façon style boo xam ne style lu yàq la. manipulation la manipulation la. Mhm. Euh, ay insulte la ay calomnie la. Mhm. te loolu wax dëgg yàlla c'est leur façon de faire hein. Mhm. on leur donne la liberté de le faire moi en tout cas euh, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas le faire à chacun sa conscience à chacun sa façon de faire mais vraiment moi je dis que un leader d'opinion qui veut informer juste et vrai qui veut alerter am na une façon de communication boo xam ne di nga ko def te doo yàq kenn te li ngay wax ça va passer et les gens vont t'écouter c'est pas parce que tu es à l'extérieur et que bon peut-être la loi de ce pays ne peut pas agir sur toi que tu vas faire du n'importe quoi si li ngay wax xalaat si ñett yi xalaatal ki ngay wax dafa am njaboot dafa bokk si askan yow mii di wax xalaatal askan bi nga bokk ni nga koy waxee ni ñu lay xoolee su nekkee peuple bi moo tax ñuy wax construction bi moo tax ñuy wax nga xalaat dëkk bi nga bi nga koy waxanteel nga xool culture dëkk bi ak éducation dëkk bi ndax li ngay wax méngoo na ak li ngay def noonu donc il est très important du duñu xaabaabal kenn ku nekk am na façon nu muy waxee mais on recommande boo demee ba di waxal boo demee ba di alerte Sénégalais sur des faits constants de détournement am na ils en ont le droit ils peuvent nous alerter sur des détournements ils peuvent nous alerter sur une xam na sur une mafia ils peuvent nous alerter sur des injustices loolu yëpp on l'accepte mais de le faire avec la manière la plus éducative parce que sunu ay doom dañu toog di leen déglu di ko partager et aujourd'hui nous sommes en train de semer une mauvaise graine par rapport à cette jeunesse suñu tegee tey une jeunesse violente une jeunesse qui s'attaque aux édifices publics une jeunesse qui yoo xam ne dañu sàcc une jeunesse yoo xam ne dañu attaquer ay magasins rien ko pour loolu une jeunesse violente dem ba di agresser ay force de l'ordre di jël ay briques di leen dóor ñooñu su cette graine là c'est une très mauvaise graine qu'on peut récolter d'ici dix ans avec une violence qu'on ne pourra pas contrôler. Et je veux mhm. dire, mhm. je veux profiter de votre antenne mhm. pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité sénégalais qui sont sur le terrain de maintien d'ordre actuellement au Sénégal, qui font preuve de beaucoup de professionnalisme. qui font preuve de beaucoup de sérénité et de calme. parce que bu ñu calme boobu lim ils, sont, ils font preuve de beaucoup de maîtrise devant beaucoup de situations. Et mhm. vraiment, à travers votre antenne, je voudrais leur rendre un hommage et vraiment les encourager, puisque actuellement, les moments sont très difficiles. Vous vous imaginez, ça fait presque plus de trois mois, ils sont mobilisés. ñenn ñi du ñu nelaw guddi wala deux heures trois heures de temps la ñu am pour reposer wu après se repositionner dans les carrefours pour assurer la sécurité et la maintien d'ordre bu dul woon ñoom du ñu toog fii di def interview am na ñoo xam ne du ñu doon nelaw vraiment gàcce ngàllaama sunu jàmbaar yow leen di dañ leen di vraiment parce que tamit liggéey bi jàpp nañ ne rafet na damay ñëwaat un peu ci violence boobu noonu nga doon wax léegi léegi ak yàq saccage bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy gis gis nañ ko fii ci Sénégal mais aussi bu ñu demee à l'extérieur aussi gis nañ ko parce que am na sax yenn consulat yoo xam ne dañ leen a est-ce que aussi tamit les Sénégalais de war nañu xaat ci ñoom ce même bu fekkee ne ñoom it am nañ ay yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy nekkaale ñu ngi koy gisaale mais est-ce que war nañu toll foofu ci niveau de violence dem bay saccager des consulats. Euh, vraiment nous déplorons. nous déplorons à la dernière énergie. L'autre me dit de condamner, mais je me limite à déplorer. Ce qui s'est passé à Milan, c'est la ligne rouge. Nous, autres Africains, on ne peut pas toujours alerter les autorités, revendiquer la, les conditions, les mënuñu di euh, wax ak autorités yi tout le temps di leen wax nañuy yokk nan la ñu taxawee sénégalais de l'extérieur pour ñuy jot seen ay kayit. nan lañu jàppalee sénégalais yi nekk ci bitim réew seen ay jafe-jafe fu ñu fu ñu laalee doomu sénégal si bitim réew ñun taxaw nañu fu doomu sénégal amee jafe-jafe si bitim réew wax nañ si buñ si waxul dox nañ si luñ si xam ñu ngi ko siy def ñu xëy ñu dégg ni ko ñu ngi yàq ku lu toll ni consulat ak consulat lu muy représenté si taxawaayu doomu sénégalais bu nekk bitim réew kooku duñ ko rafetlu ak lu munti am mën nañu taxaw si buntu consulat bi manifester mën nañu sax bu ñu buggee dugg ba ci biir consulat bi ñaxtu foofu mais di dóore di yàq ay bagages loolu conséquence yi mu mën a am te conséquence bi am Milan moom fii ak fukki at Milan dañ ko dund parce que dangay xool tey boo soxlee extrait de pour defar sa doom këyit dootoo ko am sa do sa mbokk bu làkk woon tey nga soxla certificat de décès pour dem ñu indemniser la dootoo ko amati bu ñu waree defar passeport pour nga mën a renouveler sa carte de résidence wala nga renouveler sa contrat de travail dootoo ko amati même si élection ñu ngi wax waxu élection fichier boobu ñu yàq noonu mais si fichier boobu la ñu produire carte électorale yi kon ñoom tey amatuñu fichier bi nga xam ne war nañ fa mën a basé wu pour defar leen carte électorale pour ñu voter oui ou contre donc c'est lourd de donc li xew gis nañ ko Paris la njëkk a commencé ñu ne Bordeaux Bordeaux la jóge ñëw Paris dëgg la manifestation li liberté d'expression liberté d'opinion lu ñuy nangu la bi ñu yaakaar ni que dina fa yem ñu ñëw New York New York foofu la gën a tàngee mais li xew Milan moom wax dëgg yàlla dañ koy dàq dama ne sama gaañ yi def leen li ngeen war a def ak intelligence bi ñu xamee. def leen li ngeen war a def ak maîtrise bi ñu xamee. ak détermination nag. mais nag wax dëgg yàlla yàq matériel bi nga xam ne man maa ko moom yow yaa ko moom ñun nañ ko bokk muy ak matérielu Sénégal te ngeen bëgg ñu ne dañu construire Sénégal am na ñenn ñoo xam ne attention. j'attire l'attention de mes compatriotes. bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci réseau yi di wax. soit dañu am double nationalité te xam nañu dara du leen fa fekk parce que am nañu nationalité réew mi ñu toog wala ñenn ñi am nañu carte résidence parce que xam nañu ak carte résidence boobu peut-être procédure bi leen di si topp leen si topp mais ñi nga xam ne amuñu kayit ñoom ñoo si gën a loru te ñoom ñoo gën a exposé wu parce que boo nekkee bitim réew ngay def loolu ñu la jàppee ñu contrôler ni que yore woo xam nga li la siy fekk te li la siy fekk état wu Sénégal comme ni ko ministre de l'intérieur waxee bu activer Interpol activer coopération internationale dañ lay extrader te ñu la extrader lu la si fekkee yow yaa tooñ man de nangu naa kuy manifester mais nanguwuma kuy yàq. nanguwoo kuy kuy yàq ni nga ko ni nga ko waxee ci lay ci lay ñëwee bu ñu gisee au Sénégal actuellement dañuy dégg les autorités de l'État bu ñuy wax dañ naan y a des forces mais xanaa à l'étranger duñ ni ñi nga xam ne ñoom ñoo saccagé ce sont aussi des forces occultes aussi ñoom ñooy attaqué. Euh, la violence peut s'exprimer partout. euh, force occulte ça dépend de la détermination et de qui et de quelle philosophie la ñu nekk di euh, exprimer ñii di ne nañu saccager c'est quoi une force occulte c'est une force invisible qui attaque pour faire mal ou pour tuer ou pour détruire c'est ça une force occulte tey ce qui se passe à Milan si on n'exploite pas les vidéos ceux qui sont allés attaquer Milan on les connaît pas on, on peut si c'est pas les vidéos on peut les connaître on les on pas bi ñuy dem foofu ñi leen si fekk si ñi doon manifester fu ils ne savaient pas que leur intention c'était de c'était de saccager le consulat mais ñi taxaw si buntu def face ak policiers yi manifester wu ci biir manifester ci vidéo yi sax di ngeen dégg ñenn ñuy ñu koy condamner ñenn ñu koy dàqa noo lii ëpp na lii ëpp na mais kat moo am intention policiers yi taxaw ne la non bul dugg nga dem wiiri jaar si ginnaaw kooku am na intention bu mu am dugg foofu di tas mais kooku c'est c'est c'est c'est c'est ton intention aux mhm. c'est une force que tu as occultée mhm. maintenant nag quand les les forces forces occultes fii à Dakar mhm. bon nañu gouvernement bi gën a éclairé par rapport à cette communication mais li détermination bi ñu am nii moi j'étais sur le terrain am na ñu ma si gis am na ñu ma si gis ñi doon taal man su ma booru koñ dëkkuñu suma koñ xaw ma nag fu ñu jugee mhm. mais c'est tout à fait naturel hein c'est une population qui qui qui qui qui mais nañu xool gouvernement bi bu amee ay forces occultes mu communiquer ko mhm. na ko wone mais nag am na une détermination populaire boo xam ne euh, c'est à analyser cette violence mhm. na ko sociologues yi anthropologues yi euh, juristes yi nañ ko jàng ñu xam fu mu jugee parce que en euh, deux mille vingt waxoon nañ ko fi les force occultes en deux mille vingt trois ñu ngi waxaat les forces occultes où on a un problème de renseignement où on a un problème de sécurité mais ya un problème cette violence qu'on a vue avec nos jeunes su nekkee am na ñu lu leen rax nañu xool ñan ñoo fa ñan leen fi indi ak lan moo tax ñu jox leen kii man damay wax il euh, y a beaucoup d'innocents dans les prisons y' a beaucoup dama seeti ñenn ñu nekk en détention boo leen xoolee ñi si ëpp ay xale lañu xale nag lu ko yóbbu si manifestation lu yomb la j'en appelle à nos autorités euh, judiciaires à nos autorités policières xam nga xale mën nga génne rek ma riirandoo yóbbu la teg biirig da dagga garab mhm. mais ki nga xam ne dafa gàddu cocktail molotov dugal ko ci biir saagam dem gis saaru police wala gis policier yëkkati dóor ko kooku c'est un délinquant mhm. kooku c'est un def la part la part des choses ci li nga xam ne mooy les manifestants ak ñi nga xam ne ay ay o lañ ñëwaat nga aussi foo am solo c'est-à-dire l'État aussi na vraiment taxaw bu baax a baax ci communication bi mu yor ci les forces occultes pour les sénégalais gën a xam exactement ñooñu ñan lañu mais aussi lan moo leen lan moo leen tax a jóg dinañ ñëwaat un peu sur sur la diaspora parce que yaa ngi wax ci fermeture euh, ñu ngi wax le ministre mi ngi wax la fermeture donc des consulats est-ce que fermeture consulat boobu aussi tamit est-ce que c'est la mesure boo xam ne waroon nañ jël bu fekkee ne importance yi nga xam ne consulat am na ko ci la vie des des immigrés bon. Euh, c'est pour une première dans l'histoire de la diplomatie et des consulats du Sénégal si njëlbeen junj naa ko ñuy tëj l'ensemble des réseau man je suis conscient de l'importance ak consulat import da gis ku jóge dëkk ak dëkk pour dem ci consulat pour wut kayit léeg-léeg nga fanaan fa ñetti fan ñeenti fan pour nga am benn kayit légalisation léeg-léeg sax pour nga am problème bi léeg-léeg ngay jóge dëkk ak dëkk pour dem ci benn consulat ñun en Espagne amoon nañu problème consulaire suñu consulat général mu war a jóge Madrid ñu yóbbu ko Barcelone. parce que Barcelone fu la Sénégalais yi ëpp. mais Madrid ñu ñen ñëpp foofu la ñu doon daje parce que mooy capital bi. mais bi ñu waxtaanee ak les autorités dañu juger ne il faut ñu am ñaari consulat général benn à Barcelone benn à Madrid c'est juste pour vous dire. Mhm. importance su consulat général. donc. Euh, ministre des Sénég ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur vraiment bu demee ba juger pour des raisons de sécurité et pour des raisons déstabilisées vraiment dafay teg consulat yëpp Sénégal ba situation bi de euh, normalaat et fermeture bu provisoire la vraiment man dama koy saluer parce que tamit la vie des fonctionnaires consulaires c'est en danger te bu ñu xam fan la manifestation yi di génn et à cela nag manifestation moom ku bëgg a def sa détermination exprimer ko à l'extérieur c'est garanti mën nga dem si buntu consulat bi def li ngay def wax li ngay wax dem dafa am benn paradoxe bi may wax ñi nekk bitim réew di nee toog bitim réew di nee dem leen kër taali kër diw dem leen teg kër taali diw bitim réew la ñu toog xam nañu responsable yi nekk foofu ñooñu di wax noonu nañu dem taali kër kenn foofu bitim réew mooy li may wax rek nañu arrêté parce que xam nañu bés bu ñu taalee kër kenn bitim réew du comme fii foofu police bi dañ lay dem jëli la fi nga nekk ne la ràpp si kaso bi te buñ la newee ràpp si kaso bi li la si li la war a dal dina la dal mhm, donc waruñu mhm. nekk bitim réew du nga xam ne li nga xam ne mënuñu ko def si réew yooyu mhm. ñu ko fii ñu koy insister pour nit yi def ko fii c'est pas normal c'est pas juste c'est pas normal c'est pas c'est pas juste dinaa yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko intenté est-ce que ñoom tamit am ñu am de problèmes avec la justice donc de exemple mais si le consul général porte plainte et que les vidéos sont là xam nañu lu mu kii la police italienne est très professionnelle mais en Italie y a tout le temps des manifestations en Europe y a tout le temps des manifestations ce sont des polices professionnelles vraiment c'est déplorable vraiment waruñu woon yegg fii mënoon nañu manifester lu ñuy manifester mënoon nañu def lu ñuy def nous sommes partisans de cette manifestation pour dénoncer quelque chose néew ma ñoo am dëgg wala amuñu dëgg une injustice qu'ils voient ils sont allés devant l'autorité consulaire devant l'autorité diplomatique pour faire exprimer leur opinion par rapport à leur pays c'est leur droit le plus naturel mais par contre leur devoir qui de préserver le bien de la nation sénégalaise à l'extérieur par contre ils ont failli à cela et ça nous le déplorons et vraiment nous l'acceptons pas nous l'acceptons maintenant nag mmh, mmh. c'est aux autorités de prendre leurs responsabilités et d'identifier ces fauteurs bon li leen ci mun ti fekk nag ñu xam ne tamit euh, dëgg la kaasal Sénégal moo leen fa yóbboon mais jalgati nañuy yoon boo xam ne waruñu fa yoon def moo tax on appelle à la sérénité on appelle à la retenue de faire ce que nous devons faire mais avec intelligence avec pacifisme vraiment il est très important à ces moment là ku nekk li ngay def nga xam ni nga koy defee si jàmm ak salaam ak dal jàmm ak salaam ak dal donc sànq bu ñu la déggee baax da nga ne le ministre def na fermeture bi comprendre ngeen ko parce que dafay assure la sécurité des personnes maanaam le personnel du consulat ak ñi nga xam ne mooy les biens du consulat maintenant foofu noonu tamit est-ce que du am benn amalgame c'est-à-dire est-ce que waruñoo privilégier autant plus l'intérêt des Sénégalais vraiment la sécurité des personnes et et, et du consulat aussi l' intérêt des Sénégalais si matériel bi ñuy liggéeyee la nekk ñu ubbi ko ñu dem saccagé ji ko. Mhm. foofu la intérêt des Sénégalais la nekk. wala ñu ñu tëj assurer seen sécurité ba stabilité am ñu ubbi ko avec un bon fonctionnement. Mhm. c' de prendre le risque ou de faire avec le risque. Mhm. qu' est ce qu'il y a lieu de faire. moi vraiment je félicite je félicite madame Aïssata Tall Sall devant cette situation. ça va porter préjudice. à certains certes. mais la sécurité des biens, du personnel également, on ne peut pas prendre des risques par rapport à... On a bastonné des gens à Milan. bul xam ëllëg ci biir feneen lan moo fay xew ndëgam fii la ñu gis ñuy jël ay fetel di door bul xam fële lan moo fay am donc pour l'instant puisque c'est provisoire jusqu'à que le calme soit re, re, euh, euh, revenu donc nañu jàpp si loolu ñu xam ne ce sont euh, des mesures pré euh, préventives ce sont des des des mesures provisoire à cela vraiment l'autorité nous sommes en phase avec l'autorité par rapport à la fermeture temporaire ba calme stabilité am calme stabilité am sama technicien mi ngi naan ma temps bi jeex na Souleymane xanaa ñu bàyyi la nga wax ban discours la ñuy tenir actuellement parce que gis nañ ne vraiment li nga xam dafay xew Sénégal actuellement dafay répercuté wu à l'étranger maanaam li nga xam ne sax moom la ñuy moom la ñuy doxalee sunu doxalin boo xoolee non compatriotes yi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur aussi noonu la ñuy doxalee c'est-à-dire la violence ici la violence là-bas ban discours la ñu war a mën a joxe actuellement ci situation bi nga xam ne moom la ñu mel moom la ñu nekk pour vraiment ñu revenir au calme. seen patron wax na ko. dégg naa ñaari discours am si loolu. bon je pense que le discours de tout un chacun c'est le calme la sérénité faire face à cette situation avec intelligence. Mm que ce soit la candidature ou le troisième mandat ou autre. la -hmm. j'appelle le président Macky Sall. Accès à plénitude les pouvoirs qui lui sont conférés avec son intelligence. Cette histoire de troisième mandat est en train de brûler le pays. Euh, na jël conscience su xool moom moo xam day nekk candidat wala du nekk candidat mais na si wax sénégalais yi xam fan lay féetee benn ñaar loolu bu amee sénégalais yi ñu ànd ak dal ñu xam ne am ñu fi ay ëttu attekaay ñoo xam ne foofu la ñuy yóbbu ñoom ñooy valider ak du ñu valider buñ ko valider wa ilaa ilhamd dina am bés boo xam ne du ñu xam kii mooy alkaati du ñu xam kii mooy tukkuleer bi du ñu xam kii mooy séeréer bi du ñu xam kii mooy joolaa bi duñu xam kii ñun ñëpp ñooy ànd bës boobu huit heures ba dix-neuf heures dem vote yi su boobaa résultat yooyu communauté internationale bi mu ngi fi yéen journalistes yaa ngeen fii observateur yaa ngi fi dañu xam lan moo génn foofu su boobaa la ñu xam qui est majoritaire au Sénégal may waate rek encore une fois de plus ak ku ko munti hérité boo fi jëlee réew moo xam ne réew en cendre la di nga toog ay ati at pour nga mën a reconstruire balaa ngay wax waxu développement donc bu kenn incité pour ñu tas réew mi nañu toog waxtaan xool nan la ñu waxtaanee réew mi réew mi kenn mënu ko tas kenn mënu ko tàll ñun ñëpp benn lañu ki ñu tooñ su nekkee am na ku ñu tooñ ba léegi procédure yaa ngi fi mhm. su nekkee am na koo xam ne jàpp na moom moo yore pouvoir bi mu xam ne le pouvoir c'est pour le peuple nga incarné ko ak ni nga xam ne noonu boo rendre ci verdict boo rendre justice peuple bi gis seen bopp si justice boobu vraiment euh, sama mbokk waa diaspora yi sama mbokk sénégalais de l'extérieur yi euh, je les rappelle encore à la retenue je les rappelle ak sagesse parce que ñoom lu ñu doxal loolu mooy feeñaat fii si réew mi te ñun ñëpp fu ñu munti nekk intéret Sénégal tabax Sénégal sunu njaboot moo ñu tax dem foofu te nag en général sénégalais bi nekk bitim réew am na si yenn yoo xam ne kenn du ko si dugal nañu moytu bu baax nañu tabax suñu réew on va participer à la vie politique de ce pays et on y participe d'une façon vraiment notable tey politiciens yi fi nekk leaders yi fi nekk yëpp ku si nekk mu ngi bëgg am diaspora bi koo wax mu ngi ne électorat wu diaspora bi parce que nous sommes important importance boobu nag bu ñu ñàkkal suñu bopp fayda bu ñu boo xam ne en général ils ont des problèmes soit administratifs xam nañu bu baax li ñuy wax wala ils ont des problèmes judiciaires foofu wala ils ont des problèmes sociaux par rapport ak ñoom seen bopp. ñooñu bëgg a taal Sénégal. nañu moytu loolu. loolu la Souleymane Alioune Diallo vraiment. mais balaa ngay kii nga permettre ma vraiment de m'incliner pieusement. Mhm. may jaale mbokk ñi nga xam ne. vraiment loru nañu si mbir mi. Mhm. Ah, ñi si làqatu. vraiment ñi tëdd ci hôpitaux yi tamit am ay gaañu gaañu ak ay mandarga yi nekk ci mbir mi. Mhm. ñooñ tamit sama xel ak sama xalaat yëpp mu ngi ci ñooñu. ñi nga xam ne tamit caabi féete na leen ginnaaw te wax dëgg yàlla manifester moo taxoon ñuy ñaan njiitu réew bi bandi ñi nga xam ne dañ leen jàpp ak ay cocktail ak ay kii ñuy taal ñooñu taxul ñu may wax mm-hmm. innocent yi nga xam ne dañu leen jàpp te defuñu ci dara ñu yàlla na leen yàlla fexe nan lañ leen génnee ci jàmm ak salaam ci jàmm ak salaam kàddu yi rafet na Souleymane moom la ñu dalaloon tey Souleymane Alioune Diallo nekk ONG international outre Africa nga xam ne dafay liggéey ci wàllum immigration ci wàllum assistance ci li nga xam ne mooy les immigrés pour ñu waxtaanee vraiment la situation bi nga xam ne gis nañ ko ci diaspora bi maanaam attitude manifestation yi nga xam ne gis nañ ko les Sénégalais de l'extérieur def ko mu nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax vraiment c'est déplorable am nañ droit manifester ñoom ñëpp même fii au Sénégal am nañ droit de manifester mais nag saccagé beeg yeneen yi je pense que duñ ko duñ ko rafetlu te discours bi actuellement fi ñu toll nii Souleymane wax na ko c'est un discours boo xam ne un discours fédérateur revenir au calme parce que ñun nii ñëpp vraiment c'est le Sénégal te bu yàqoo ñun ñëpp lay yàqale donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax remercier aussi limit l'équipe technique bi nga xam ne moom la ñu ànduloon Amadou Ndak Kébé ak Issa Pouy Khady Sarr aussi ci montage bi ñu ngi leen di jaajëfal leen jox dig daje incha allah lundi prochain encore une fois même heure même chaîne merci beaucoup